السلام عليكم ورحمة الله وكين يقول لنا يقول لنا زيار إلينا بعض الحق يعني برمي ولي جقل حديث تابي لفعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صحيح الجامع يعني أنت بدفع حديث لنا تاخي نيالنا كدم تكنا ميال لك yàlla jox ko yi mu doon liggéey ci àdduna mu fekk ca ay astaghfirullah yu bari yu mu daan def texe nag mooy dugg aljanna xadiis bi mu ngi ci saxiixul jaamic kon bu ñu tayyi benn jamono benn yoon di jéggalu borom bi subhaanahu wa taala jàng astaghfirullah di ko jéggalu bañ am lim nag saa bu ñu jullee rek lu mu gàtt gàtt nañ koy def soixante-dix fois wala sept fois wala ku nekk la nga nga def ko ndax istigfaar kat sauvetage la ci jullit bi borom bi subhaanahu wa taala moo ni leen seen borom bi ndax moom kat mooy jéggalaa kon bi ku ko jéggalu mu jéggala te bu ko jéggaloo dana leen ubbil wërsëg euh, ubbil leen ay may yaatal seen dund te barkeel ko waaw yooyu yëpp kon ñëw yi jàng astaghfirullah di jéggalu borom bi subhanahu wa taala ndax nit dafa doye di fa di kenn mënul garanti ne di nga dund def bakkaar bakkaar yooyu nag ay taq-taq la doon ay tilim-tilim lu koy foot astaghfirullah moo koy foot boo koy wax nag nga di ko teewlu hakada aqul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu